fas yéene waxtaan ak yeen ci saxaabi yi bu mag bu ñuy wax euh, salmaanul farisi mbokk yi salmaanul farisi mi bu ñu ko waxee xel yu bari dana dem ci salman rushdi wante nag li arab di wax ne wa shattaana ma bayna al yazidayn man hala moo am seen diggante ndax Salman Rushdi moo di seytaane bi yàlla rëbb jullit ñépp rëbb ko moo doon ki nga xamante ni moo jël ay kàddu yu ñaaw jëmale ko ci sang bu tedd ba di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wal iyaazu billah Salman Rushdi mooy ki nga xamante ni noonu lislaam yi ñoo ko ger mu bind téere bu rëy ci yonent bi xas ko lu ñaaw lu nekk mu teg ko ci deram Salman Rushdie mooy ki nga xamante ni dundam xat na ndax dummoyu gi mu dummoyu njubug yàlla gi ak lëngoogu mu lëngoog seytaane tax na itam jullit yaa ngi koy wër ci àdduna bi yëpp ndax lislaam daganal na deretam Salman Rushdi boobu nag bokkul ak Salman al Farisi mi ñu bëgg waxtaane ndax Salmanul Farisi mi moom la ñu tuddee al baaxitu an moo doon góoru yàlla gi nga xamante ni dafa jógoon sol di sàkkuk njub ba yàlla orienté ko ci lislaam salmaanul farisi saxaabi bu mag la saxaabi la boo xamante ni dundam ba mu jeex jàngale la jullit ñi mën neen ci jële leçon yu rëy yu ñu mën a jëriñoo ci seen dund moo tax ñu bëgg a waxtaane tey histoire ñu ni soo demee ci téere boobu ñuy wax ab tabaqatul kubra ca xaaju ñeenteel ba sëriñ boobu di ibnu saad mu nga fa bind di nettali istuwaaru salmaan alfarisi mi wante salmaan moom ci boppam moo nettali istuwaaram ci jamono bi muy dund mu nettali ko benn saxaabi bu ñuy wax abdallah abdallah ibnu abbas ndax abdallah ibnu abbas moom la salman nettali histoire wax ko ay jaar-jaaram yépp abdallah ibnu abbas nettali ko téere yi bind ko ñu ne salman alfarisi moo toog di nettali Abdullah ibnu Abbas ay jaar-jaaram mu wax ko ne ko kuntu rajulan min asbahaan wa kaana abi dahqaan wa kuntu min ahabbi cibaadillahi ilayhi اجتهدت في المجوسية حتى كنت قاطن النار التي نوقدها ولا نتركها تخبو wa kaana li abi daya arsalani ilayha yowman fa xarajtu fa marartu bi kanisatin linnasaara fa samictuhum yusalluuna daxaltu calayhim li andura maa yasnacuun fa acjabani maa raaytu min salaatihim wa qultu li nafsi hada xayrun min diinina wa baqitu cindahum xata gaabat alchams fala dahabtu ila daycati abi wala rajactu ilayhi xatta bacata fi ithri moom Salmaan nee na man maa ngi bokk ci réew mu ñuy wax Asbahan mu ne iranien laa woon di perse sama baay mu ngi tudd Dahqaan nee na mu bëggoon ma lool ndax li mu jur man la ci gën a bëgg li bëtam di tege itam man la ci gën a bëgg ñu nekkoon nag ay jaamukatu safara ndax ñun safara leen daan jaamu xam nga safara nit daan na ko jaamu ndax soo demee Iran ñoom safara leen daan jaamu li tax nag nit di jaamu safara du dara lu dul safara dafa bari ay njariñ gis ngeen ne safara moo ñuy toggal suñu ñam yi moo ñuy tàngalal ndox bari na itam njariñ yu làqatu ci energie njariñ yooyu ba ñu ko gëstoo xam ne safara mu ngi jouer rôle bu rëy ci dunduk nit même jinne sax ba ñu ko laajee ne ko lu tax nga gudd fan daf ne bari lu may jaaru moo tax ma gudd fan moo taxoon ba nit ñi xamagul yàlla defe woon ne ne safara mooy yàlla loola taxoon nag waa Iran daan jaamu safara moo tax nag moom Salman al Farisi wax ne ñun safara leen daan jaamu mu ne safara wa nag dañ ko taaloon mu nekk taal bu rëy ñu koy xam ak matt yu rëy nee na man nag ma dëkkoon ca safara sa daan ko garde nekkoon bëkk néegu safara wa di ko garde di ko taal duma nangu mukk ma fay nee na bokkoon naa ci ñuy daq jaamu safara nee na bis nag sama baay am lu mu réer lu mu réerle yónni ma pour ma wut loolu mu réerle nee na ma génn ba ma génnee nag laa romb benn église boo xamante ni maa fa fekk ay nasaraan ñu ngay jaamu seen borom nee na maa ngi leen dégg ñu ngay julli nee na ma daldi dugg si nag ci biir église bi di xool naka la ñuy julle mu ne waaye bi ma ñëwee di gis naa ne seen julli ko yéem na ma nee na ma wax ak sama bopp daldi wax ni diine jii de moo gën a sell sama diine baay moo gën a sell itam suñu diine ja ñu nekke ndax jaamu gi daal moo gën a sell jaamu safara nee na ma toog di leen seetaan ngir cofeel gu ma am ci ñoom ba jant bi so nee na dew ma seeti li ma sama baay yónni delluwuma itam kër ga nee na ba sama baay yebal ay nit ñu may wut nee na foofu nag laaj naa fa nasaraan ya ma fa fekk ne leen seen diine ji ndax fii la soqi ko ndax fii mooy cosaan li fii mooy seen siège social ñu ne ma déedéet siège social ba mu nga Cham ca Syrie nee na bi ma dellusee ci kër gi ba giseek sama baay nee na nettali naa ko li ma gis ma ne ko bàyyi inni maratu yu qawmin yusalluuna fi kanisa fa ni salaatuhum wa raaytu anna diinahum xayrun min diinina mu ne ma ne ko bàyyi man daal gis naa aw nit ñuy jaamu yàlla ci benn église waaye daal seen jaamu yàlla gi yéem na ma te gis naa ne seen diini moo gën suñu diine ji nee na gannaaw bi ma waxeek sama baay ba pare ndeke mere na ma ci li ma def jéppi na ma ba dafa digle ne nan ma jàpp chaine ma ñu daal may yeew tëj ma nee na waaye fexe naa ba yónnee ca nasaraan yooyu ne leen mankat sama baay jéppi na ma mere na ma te itam chaine na ma ma wax leen itam ne sama pas-pas maa ngi koy gën a feddali man daal sama diine bàyyi ji génn naa ci ndax doyu ma léegi gëm naa seen diine ànd naa ki yéen kon nag isa qadima aleykum rakbu shaam an tuxbiruni qabla awdatihim li ar li arxala maahum ila shaam mu ne leen bu fekkente ne nag am na caravane bu fi jaar jëm suri comme foofu la seen siège social bi nekk na ngeen ma bind lettre yëgal ma ko wala ngeen yónnee ma ndaw danaa fexe nu ma rëccee ba ànd ak ñooñu dem Cham nee na bi nga xamante ni am na nee na caravane bu fa jaar jëm siri nee na yebal nañu ci man ndaw wax ma ne ma am na kat ñu fi jaar war a dem siri pour naa ñëw ànd ak ñoom nee na fa xatamtul xadida wantalaqtu maahum nee na ma daal nag fexe nu ma dagge chaîne yiñ ma yeewee woon nee na ma daldi di fëx nag ànd ak ñoom nee na bi ma ñëwee ànd ak ñoom nee na ba àgg ci dëkk boobu ñuy wax Cham nee na wa hunaka sa'altu an aalimihim fa qiila lii huwa al asqaf saaxibu lkanisa fa ataytuhu wa axbartuhu xabari nee na bi ma ñëwee nag laaj naa leen ne leen waaw yéen seen diine ji kan moo ci ëpp xam-xam kan moo ci seen kilifa ñu ne ma waa ji ñuy wax askof moom moo fi ëpp xam-xam ndax mokkal na tawret ak injiil moo fi kilifa ji te itam moom mooy njiitu kanisa bi bu doon ne jàkk la ñu ne mooy ilimaan ji nee na jëw ci moom nag wax ko sama jaar-jaar wax ko itam li ma bëgg nee na fa aqamtu maahu axdumu wa usalli nee na ma toog fa nag di ko di liggéeyal ba di julli nee na dafa di fa jàng itam mu ne wante nag kaana hada al asqaf rajula suin fi diinihi is kaana yajmacu sadaqaat min annaasi laa yuwaddicuha lakinahu kaana yaktanizuha li nafsi mu ne wante asqaf moomu di boroom xam-xam boobu di kilifa googu nee na gis naa ne daal jikkoom rafetul mu ne ndax sarax yi ñuy indi ci église bi daawu ko séddale miskin yeeg faqiir yi ak way ñàkk ñi moom kay daf ko daan jël denc ko ci këram di ko jëriñoo mu ne waaye bi mu bi mu faatoo nee na indi neen beneen waaye mu remplacé ko mu ne wante fama raaytu rajulan ala diinihim xayran minhu wala acdama ragbatan fi l axira wala wa zuhdan fi dunya wa dëban ala alcibaada wa axbabtuhu fa lama xadarahu qadruhu qultu lah innahu qad xada qad xadaraka min amrillahi ma nara fa bima ta'muruni wa ila man tuusi bi mu ne bi nga xamante ni asqaf moomu gaañu na nee na indi neen beneen waay pour mu remplacer ko mu ne wante nag waa ju baax waa waaju yiw nee na mësuma dajeeg nee na ci diine nasaraan nit ku yiwee noonu mësuma gis itam nit ku soppee àllaaxira ak nit ku dëddoo àdduna ni ak nit ku dappatoo ci jaamu boroomam ni waa jooju nee na ma sopp ko lool nag taqoog moom mu ne wante yàggumaak moom rekk yàlla dogal àppam jot nee na mu mu feebar feebar bu metti ca feebar ba nag ma gis ni kii daal xam naa ne feebar bi du ci jóg nee na ma ñëw nag jege ko daal di koy laaj ne ko ah, sang bi yow kat dafa mel ni sa jege na dafa mel ni daal soreetul léegi nag maa ngi lay ñaan nga wax ma dénk ma itam sa gannaaw koo xamante ni dana mel ni yow ci jikko mu ne ma bunayya ma acrifu axadan min annaasi ala misli ma ana calayhi illa rajulan fi lmuusib mu ne mu ne ma doom man di gisuma ku mel ni ñun ci ni ñu fonkee diineeg ni ñu ko jàppeeg ni ñu bàyyee xel àdduna ni ñu bàyyee xel àdduna ak i pexeem ak i naxaateem ak ni ñu yaakaaree yërmande yàlla ak mbaaxam ëllëg xanaa danaa la yebal ci benn waay boo xamante ni mu nga fële ca muusil soo demee waa ju baax la nga jaxasoog moom dina la dimbale lu bari ci sa wàllu diine mu ne moo tax nag bi nga xamante ni góor gi faatu na nee na ci laa dikk nag ci saaxibul muusil ma wax ko itam sama bëgg-bëgg ak li ma bëgg ci sama wàllu pas-pas mu ne wante wa aqamtu maahu ma sha allahu an uqima xataa xadarathu lwafaat nee na man tam ma toog ak waa jooju ca muusil def fa samay sama tarbiya nee na toog naa fa diir bu yàgg nee na ba kooku itam yàlla dogal mu war a faatu nee na ba ma gisee ni kiikat war na faatu ndax àppam jege si na nee na ñëw naa ba ci moom ne ko nag dama bëgg nga yebal ma ci koo xamante ni dana ma mën a jàppale ci sama wàllu diine ma ànd ak moom nee na ba ma fa toogee nee na dalla ni ala na yebal na ma nag ci benn jaamukatu yàlla bu farlu sax nee na ma ñëw ci moom wax ko itam sama bëgg-bëgg wax ko li ma bëgg ci diine ji nee na ma nekk kooku itam ba mu war a faatu mu ne ma nag comme maa ngi génn àdduna dama bëgg nga dem ca umuriya ca réewum ruum ca romeya soo fa demee nga jéem a seet foofu ko mën a àndal ndax kat dëkk bi ma nekk gisuma fi nit ku baax koo mën a àndal nee na fa raxaltu wa aqamtu maa rajulin hunaaka wastanactu li maashi baqaratin wa ganimatin mu ne ma dem foofu nag ci umuriya ci réewu ruum nee na ba ma fa demee nag liggéey naa fa sax ba jot naa fa am alal ju bari ndax am naa fa ay nag yu bari am naa fa itam ay béy ak ki xar yu bari nee na wante waa jooju ba nekkaloon ci réewum ruum ci umuriya bi nga xamante ni itam moom deewam jot na nee na laaj naa ko ne ko kan nga may dénk mu ne ma yaa bunayya ma aarifu ahadan ala mithli ma kunna alayhi آمرك أن تأتيه ولكنه قد أظلك زمان نبي يبعث بدين إبراهيم حنيفا يهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين فإن استطعت أن تخلص إليه فافعل فإن له لآيات لا تخفى فهو لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية وإن بين كتفيه خاتم النبوة ida raaytahu araftahu mu ne ko yow sama doom man di gisuma ku mel ni ñun ci fonk diine nasaraan ak di jaamu borom bi na mu ware mu ne ko wante nag mag ngi la yëgal ne jamono ji ñu nekk jamono yonent la boo xamante ni moom lañuy tuddee yon yonent mu jóg jamono moom nag danañu ko yebal ci diine maam Ibrahim dana gàdday nag ñëw ci dëkk bu nga xamante ni dëkk ba dana bëri tàndarmal lool mu ne ko su fekkente ne nag mën nga gëstu dëkk boobu ba xam ko nee na na fa dem xaar fa yonent boobu bu ñëwee nga gëm ko ànd ak moom ndax li muy indi moo wér te moo dëggu te itam diineem mooy diine ju wér ji nga xamante ni bu ñëwee mboolem diine yi dana dugg ci biir dana leen yóbbaale géew mu ne ko nag maa ngi lay yëgal ne yonent boobu am nay kéemtaan yu dul nëbbu ndax kéemtaanam ñépp a koy gis ñépp a ciy teg seen bët maa ngi lay jox ñett ñetti mbir ci moom waaw lu lay won ne moom mooy yonent boobule mu ne ko bi ci njëkk moo di ne du lekk sarax bu ñaareel bi itam dana nangu àddiya bu ñetteel bi moo di ne boo xoolee diggante ñaari mbagg ya am na lu ñuy tuddee xaatamu nubuwa mu nga ca lu mel ni espèce su tampon nee na waa jooju tedd ngeem ak mbaaxam ak yiwam soo ko nee jàkk rekk xam ko nee na ma kontaan lool pour gis nag sang bu tedd boobu nga xamante ni junj nanu ma ko sama yitte ak sama bëgg-bëgg yépp moo di wuti sang bu tedd boobu ñu ma junj te xamaguma kan la nee na wa marra bi rakbun zaata yawmin fa sa'altuhum an bilaadihim fa alimtu annahum min jazirati al-arab fa qultu lahum uctiikum baqaraati haadi wa ganami ala an taxmiluuni macakum ila ardikum fa qaalu naam واصطحبوني معهم حتى قدموا بي وادي القرى وهناك ظلموني وباعوني إلى رجل من يهود وبصرت بالنخل كثير فطمعت أن تكون هذه البلدة التي وصفت لي والتي ستكون مهاجر النبي المنتظر منتظر ولكنها لم تكنها wa aqamtu inda arrajul alladi ishtaraani xatta qadima alayhi yowman rajulin min yahudi bani qurayda fabtaacani minhu summa xaraja bi xatta qadimtu almadina fa wallahi ma huwa illa an raaytuha xatta ayqantu annaha albalad alladi wasifa lii mu ne moom Salmaan bi ko sëriñam boobu waxee loolu bi ko sëriñam bi joxee tegtal yooyu nee na benn bis rekk am na benn caravane bu ma romb nee na ma laaj leen ñoom fan lañu dëkk ndax ay tukkikat leen di ay commerçant ma laaj leen fan ngeen dëkk mu ne wante bi ma leen gisee laa ne laa xam ne ñii ñu nga dëkk ca jaziratul arab jaziratul arab mooy presqu'île arab bi mu di mag Medina Jidda ak dëkk ya leen wër mu ne nag ma xam ni ñoom ñu ngi dëkk ci jaziratul arab nee na ma daal leen propose ne leen man daal dama bëgg ànd ak yéen su fekkee nangu ngeen am naa fi ay nag ak xar ak i bëy sama alal la jumalew ma jox leen ko su ko defee ngeen ànd ak man yóbbu ma fi ngeen jëm dëkk ba ngeen jëm nee na ñu ne ko waaw ngir bëgg bëgg alal ñu daal di jël bayam yaag xaram yaag nagam ya daldi koy jël nag teg ko ci seen gëléem yi ànd ak Salmaan Salmaan nee nañu ñu ànd ak man mu ne wante bi ñu ñëwee ba waa waadil qura nee na fa leen ma tooñee nag ndax ba ñu mu leen leeree ne sori naa samay mbokk gisatuma kenn ci samay mbokk nee na foofu leen ma tooñee nag daal di may jaay def ma jaam mu ne wante man musuma nekk jaam sama baay buur la woon mooy juddoo ci famille bu riche mu ne gëstu dëgg moo tax ma mujj nekk ci loxo nekk jaam mu ne foofu nag leen ma tooñee def ma jaam nee na foofu nag ci dëkk boobu di waadil qura nee na gis naa fa tàndarma yu bari nee na ba sama xel sax di wax naan waaw est-ce que du dëkk bii leen ma waxoon ne ma moo di dëkk bi nga xamante ni ci la yonent boobu ñuy wax yu moom muntadar ci lay ñëw nee na sama xel daldi di ñaaw lool nee na foofu nag toog naa fa ab diir di fa liggéey ci waa ja nga xamante ni moo ma jënd nee na liggéey naa fa lu bari ci toolu tàndarma yi di ko liggéeyal ndax ñoom ay baykatu tàndarma leen nee na benn bis nag am na benn yahuud boo xamante ni mu ngi bokk ci bani Qurayda nee na moo ñëwoon seet si sang bi ma jëndoon foofu ci waadil qura nee na ba ma gisee nag ma nekk góor gu dëgër gu mën a liggéey nee na ca la jënd nag jëndaat ma ci yahud boobu kon kañ ma njëkkoon a jaay daf ma jaayaat nee na ma génn mu génn ànd mu génn ànd ak man nag ndeke mu ngi ma jëme ca madinatul munawwar mu ne wante boobu tudduloon madina mu ngi mu ngi tuddoon yesrib nee na bi ma ñëwee giñ naa ci yàlla ni ba ma ne jàkk dëkk bi la ma leer ne dëkk bi muy dëkk ba ma sama sëriñ ba waxoon nee na ma toog fa nag di fa liggéey ci tooli tàndarma yi waaye tonu tàndarma yooyu mu doon liggéey nee na ay juif a ko moom ay yahuud a ko moom yahuudu bani Qurayda mu ne fala toog ba yàlla yebal xata baata allahu rasulahu wa xata qadima almadina wa nazala bi quba fi bani amru bnu awf wa inni la fi ra'si naxlatin yowman wa saaxibi jaalisun taxtaha id aqbala rajulun min yahud min bani ammi fa qaala yuxaatibu qaatala allahu bani qiyla innahum la yataqaasafuuna ala rajulin bi qubaa qaadimun min makka yazcamuuna annahu nabi fa wallahi ma huwa illa an qaalaha xataa axadatni alcarwa fa rajafat innaxla xataa kittu asqut fa fawqa saaxibi summa nazaltu sarian aqulu ma taqul ma alxabar fa rafaca sayidi yadahu wa nakadani nakdatan shadida summa qaal ma laka wa li hada aqbil ala amalik mu ne ma toog ca dëkk boobu di yasrib te ñu gën ko miin ci madinatul munawar nee na ma toog fa nag di liggéey nee na ba bis mu ne ma gis benn yahut boo xamante ni ñëw na seet si sama sang bi di moroomu yahutam mu ne bi mu ñëwee nag ndeke boobu yonent boobu feeñ na ca màkk di fa woote di fa woote diir bu yàgg ba waa màkk xatal ko sonnal ko di rey aw nitam ba taxoon mu yebal ñi ko gëm ne leen dem leen Éthiopie bu ngeen demee am na fa buur bu dul tooñ ba taxoon jullit ñi gàddaay dem Éthiopie pour mën a rawale seen ngëm ndax bu ñu ko deful danañu leen rey kenn par kenn ba mu jeex ba mujj yàlla ci mbaaxam daldi wax yonent bi sallallahu alayhi nag ne ko gàddaayal jóge màkkatal mukarrama jëm madinatul munawwara ndax kat ñooy sa mbokk ndax ñoo soxla lii ngay woote di lislaam ñoo ko bëgg a yëkkati te itam ñoo bëgg nekk ndimbalu lislaam bëgg a nekk ansaaru lislaam mu ne ko kon gàddaayal ndeke nee na ca bis boobu la yonent bi gàddaay nag war ñëw si nag madinatul munawwara nee na yahud boobu daldi ñëw fekk sama sang bi ci tool bi ñun ñaar ñoo fa nekk nee na boobu maa ngi yéeg ci benn garab nee na maa ngi ko dégg mu naan arab yi ñoo toskare arab yee ñàkk fayda ñoom de ñu ngi topp benn waay boo xamante ni mu ngi jóge màkk ñoom ñu ngi foog ne waa joojukat ab yonent la mu ne waaye giñ naa ci yàlla ne ba ma déggee wax boobu nee na kontaan naa kontante goo xamante ni nee na fa mu toll ci man ëpp na ba xaw naa sax dégg nga daanu ci sama kaw sang bi ndax maa ngi nekkoon ci kaw caru garab boo xamante ni na ma yëngatoo ca kaw car ba su ma deful woon ndànk danaa daanu ci sama kaw sang bi ngir mbég ak kontante ak itam xaar yonent boobu nga xamante ni sama sëriñ ba waxoon na ma ko